xam nga lii wolof di wax siiw. pon da nga am bës daal. bës moom yàlla ka yàlla moom a ko xam nga njool mu si wax njool mu ndaw kaay dogaale ma foo jëm awale ma may walal sa suma papa bon dafa bëggoon coon dégg nga fi ma jëm. Mhm. dafa bëggoon Njaga dafa bëggoon keneen mais tey jii tey Wally doomu coon moo la doomu ma boppam waa ngoon nu ma war a def xanaa xanaa def nga dara ci woy bi kon loolu moom du lu may wax waaye xam naa ne daal parce que xam na ni jaraaf dafa bëgg Wally moom moom xanaa ah, dégguloo naan xam nga ah, di wax wax yu bëgg àddina de ah mais àdduna boo ko bëggulee loo fi def